Elle. Euh, tainak, nag am dafa nekk fait bu parce que masali, dañ ko porte plainte parce que uniquement dafa doon défendre boppam défendre njabootam défendre ay yeneen Défendre yoo xamante ni bien été exposé, exposés parce que lu ñu gis Il y a des jeunes qui se sont organisés di wër di taal dëkk bi di yàq dëkk bi di yàq liggéeyukaayu jàmbur yi ñooñu tey Ousmane maître Ousmane Diagne keneen ku mënti doon dafa waroon a am une position républicaine pour fauteur faiseur de trouble yooyu noonu ñu mën leen a corriger mais defu ko mu porte plainte Massaly pour défendre jeunes yooyu noonu mala manifestant yooyu noonu loolu nag ça reste liñ ci war a war a mën a euh, jàngat mooy ñooñu nga xamante ne nii ñooy ñooy def ñaawteef yooyu maître Diagne xam na leen ba war leen a mën a défendre ba war a mën a bëgg protéger seen vie donc nag nous demandons aux Thiessois ak Thiessoises nous ñu xam ni ñiy yàq seen i bien ñiy yàq seen i liggéeyukaay ñiy yàq seen tranquillité maître Diagne xam na donc nous demandons à tout le monde de déposer des plaintes pour que maître Diagne moomu noonu mën wax ñan derrière ces ces ces ces ces là Finis à Tchess... l'ensemble des jeunes du de de la coalition Benno Bokk Yaakaar sunu taxawaay tey mooy ñëw soutenir nos frères...

braqué wu ko yor di dox di dem pour les pour les intimider qu'est-ce que nit ñi lan lañ bëgg mu to kërëm réagir mu to kërëm tok ñu ko ay te def nañ ko fi ay yoon yoon mu jall bu musul am sax ñu mëna wax tal nañ fi ay responsable tal nañ fi ay ay ay bien wu du ñaar légui nit ñi dañuy tok di ñu leen di tal di ray seen doomi nañ fi ay cocktail léegi dañu fay tok mom di xool ñu les mêmes faits là ñukoy défat fini à Thiès mala ñukoy def envers njabootam mala ñukoy def envers ay yenen Thiès waa yoo ñu ngi liggéey donc ñun nous lui encourageons que ni mom combat bi mu mënee ni ni c'est pas le combat de l'alliance pour la république ni de la coalition Benno Bokk Yaakaar sénégalais lay xéxal Thiès waa lay xéxal parce que li défendre ñi mu doon repousser pour ñu daw mënon lañu ñoo kenen ak kenen ku dul Massaly donc ñooñu mënoon da mënon mënon dak du won uniquement pour mom donc tay nous savons que des fois la police a un problème pour pour contenir manifestants hmm. S'il y a des gens qui s'organisent pour pour repousser ces manifestants là nous euh, tey euh, euh, ah, nous situation hmm. au nom de euh, euh, ci quartier Nous war une certaine organisation un comité de vigilance etc. pour soutenir la police parce que la sécurité même bu la police bi moo sécurité la police peut venir un peu en retard, nous sommes morts Donc on doit être, on, doit être prêt à défendre son bop, défendre ce que à tous les xamanteni qui nous Nous devons saisir le procureur de la République à travers une plainte pour ñu identifier réellement les fauteurs de troubles, là nous les maître Diagne leen soutenir nous ba ba ba dinañ ko le procureur pour mu identifier la. plainte bi maître Diagne def F24 nous wuy yoy nga xamni dañoo taxaw pour pour tal Sénégal ñun on fera face à partir d'aujourd'hui dent pour dent œil pour œil gatsa gatsa gi ñu les ci lañ leen fekk mais gatsa gatsa gogo manière républicaine Ñom tay dajé nañu ni dañuy ay élection élection du amu fi le 15 am ku bëgg le 15 décembre la am ku bañ le 15 décembre lay am Légui à partir de demain dinañu dem ci déposer ay plainte contre Ousmane Diagne parce que Ousmane Diagne xam Ousmane Diagne xam na ñi sàcc bagaasu jàmbur Ousmane Diagne xam na wëyu yi comme moom nee na na euh, manifestant yi ba porté plainte Massaly ni Massaly moom moo doon intimider xale yi da doon braqué ay pousse la ci ñoom kon procureur ñi doon taal dëkk bi euh, dimanche ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañ sunu mbokk policier bi dóor ko ay briques fii ci Thiès ñooñu Ousmane Diagne xam na leen identifier na leen na convoqué Ousmane Diagne le plus rapidement possible mu wax ñana ñan la pour que yoon mën def liggéeyam lolu ñun lañuy demander lenen leneen ko léegi nak ñom liñu bëgg tal Sénégal ñun dinañ taxaw lepp lu mo ñu man lu ñu yoon may ñu def ko parce que ay wuyu yu taxawaalu lañ Ousmane Diagne pexen su juboon tay fi lay taxaw and ak ñun parce que négocier na ba sonn pour jàppale Amadou Ba en tant que candidat négocier na dugg palais encaissé xaalisu Macky Sall veyu tabaski veyu korité ay millions yu bëri te àndut ak ñun encaissé na fi ku ne. kon maître Diagne su pexeem juwoon il sera parmi la les les les les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais li mu bëggoon ak li mu doon chantage moom la ñu nanguwul parce ñun du ñu ànd ak benn responsable ci di la jox xaalis wala di la ger par conviction la ñuy àndee ak ba Benno Bokk Yaakaar donc ñu ngi ñaan procureur mu woolu Ousmane Diagne le plus rapidement possible en attendant ça plainte yi dinañ ko def contre Ousmane Diagne pour mu wax ñu fan la woy yu dëgg ak sàcc ak agresseurs yi Go! ginnaaw bi ma sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi bëral cant maa ngi bëral cant ak ngërëm bu amul benn ab muy la jeunesse départementale bu ko gère maa ngi remercier maa ngi remercier mon grand frère et ami le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye maa ngi gërëm suma sœur suma jigéen PCA bu Ndiéguène di gërëm délégation bi nga xamante ne Abdoulaye Dieye moo leen yónni muy ñoom Ahmed Mbaye ak Mamadou Thiam maa ngi gërëm suma frère le président du groupe parlementaire libéral Abdou Mbow di gërëm di gërëm suma parti bi ma bokk muy UNR maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen taxawaay Le maire firndeel du côté je réitère ma fidélité ma loyauté et mon engagement sans faille auprès du président Macky Sall si Dek, Judo, Fila vous croiser ñuy jël sama bakan ma ko taille, ma ko ma ko contre criminel et ennemi de la République man nag coow du ma comme dossier bi bien une information judiciaire demain inshallah, allah à avocat bi nga maître Elas M. maître Moustapha Dieng maître Anta maître Fati demain ils tiendront une conférence de presse à 17h inshallah.